l'élection élection 23 février bi nga xamni ni la sénégalais yi falat ki nga président Macky Sall le 2 mardi suba la wara prestation de serment fi centre des expositions bu Diamniadio Jakarlok ak centre Abdou Diouf centre nag boo xoolee bi amna lu ci rangement chaise mais n'empêche dañu japp trop ñom ñep ku nekk ngi daw gauche ak droite muy chef technique bi de ki nga bi amul jot président Macky Sall dalal Sénégal lu ci quinze président ak gouvernement yu jóge fépp ci Afrique ak ci ci ci àddina bi war a ñëw ko fi nga xam ni le deux le deux nag ñu fàttali fii nii ku amul invitation do fi dugg te tamit dañuy tere ñi nga xam ni ñoom ñooy parce que bu ñu fàttali ko conseil constitutionnel ñoo fiy nekk maanaam dafa nekk loo xam affaire bu sérieux la kuy tàccu mel ni meeting ak yooyu yëpp dañ ko fiy aye bu subaa mardi te it ku ñëw fii rek dafa fekk nga jot invitation ñu won leen état état bi la toll état travaux bi ñi poser chaise ñi nga xamé ñi ci écran bi DJ, yi installation bi lepp lepp lepp ñepp ngi daw gauche ak droite Nak moy place yi nekk si kanam moy place officielle yi chaise yi sax bokul ba ak yeneen chaise noire yi ci ginnaw ñom ñep c'est des places réservées bo len xolé tour dëkk yi ñoo ci nekk pays invité yi euh, comme niñ ko waxé sank que nek gouvernement membre du gouvernement yi wala ñi nga xam ne chef de l'État yi ñom nak même sol bi ci souf sax bokul c'est en marbre boo xoolee ci marbre la une chaise aussi c'est différencié et puis c'est c'est réservé rouge baa ngi noonu ngeen di sen ñu wara ñu wara lal tapis rouge bi tapis rouge moy nek ci kanam moy nek entre chaise ci kanam ak euh, fi nga xamni moy podium bi dañ ci wara lal tapis rouge amna aussi ay chaise yu beige ñi ñuy seen nale chaise yu beige yi na ñuy seen noonu ñoom tamit batay tey installé guñ ko ñu ci installation chaise yi ak fi nga xamni moy tribune bi ci kaw au conseil constitutionnel bi soit mu chez le conseil constitutionnel rek chaise bi nga président war a ak njabot ji parce que ñom ñi ngi ci ñi ngi ci installation yi batay waye dal ragné fi li nga façon yu je ci mon chaise parce que ñu fait salle 2000 places alors chaise you. Thank you.